naka la ñu war a def wala boog lan la ñu war a def pour gën a mën a développer la petite catégorie. bon je pense que d'abord euh, comme ni ko Grégoire waxee sànq donc il faut forcément des assises ci football bi parce que petite catégorie bi liñ ciy déplorer aussi xaw na bari tuuti. comme lan par exemple donc euh, yi parce que souvent. la petite catégorie c'est des élèves comme par exemple nous à Génération Foot. Mm-hmm. ñaari L la le sport mais aussi y les études. d'ailleurs euh, boo seetloo ci baccalauréat bi passé on avait six candidats quatre yi ñoo réussir d'office avec trois mentions assez bien mm -hmm. donc deux yi au deuxième tour donc si les deux réussissent à réussissent à passer donc on aura cent pour cent donc euh, xale yi dañuy fàttali ni sase bon ay élèves lañu donc ci programmation match yi mhm. ñu koy xool bañ di ko def ay jour ouvrables donc soit ñu koy def ci week yi aussi aussi ci terrain yi ñuy jouer yi ñuy faral di jouer parce que synthétique synthétique moo ëpp risque euh, de blessure pour xale que que gazon naturel. Hmm. donc il faut que ñuy jéem a xool aspect yooyu. ñu ciy bàyyi xel investir sur ce que même ci coupe bi durant notre parcours. Mhm. loo doon match contre Teungueth FC. Mhm. donc jouer à Ngalandou Diouf qui est sur du synthé suñu benn joueur on l'a perdu comme ça fracture. Mm. genou bi dafa damm. Mm-hmm. donc ci benn appui boo xamante ne da ko teg rek tànk bi mm-hmm. tourné. Mm-hmm. donc yooyu yëpp ay facteurs la yoo xamante ne war nañu mën a toog ak ñi nga xamante ne aussi ñoo xam petite catégorie bi parce que souvent. les principaux acteurs le, voilà le sénégalais bon ñun dañu am tendance bi. donc euh, affaire yi ci kaw lay jugee rek wàcc. Mhm. mais il faut que aussi ñu impliquer les entraîneurs les joueurs ñu def benn concertation. Mhm. ñu ñi ko xam voilà defar affaire yi. waxtaanee ko voilà. Mhm. alors tey ban liggéey la direction technique nationale di sekk ak yéen par exemple yéen académiciens parce que surtout avec euh, l' équipe qui a disputé tey euh, les compétitions mondiales ak kan euh, bi. Euh, tey gis nañ ci ne académiciens yi fës nañ ci lool surtout euh, yéen ak euh, voilà les les la donc tey direction technique nationale bu fekkente ne tey bu ngi leen di amal njëriñ côté boobu noonu tey ban liggéey mooy liggéey bi ngeen xam ne tey yaakaar ngeen ke buñ ci gënee appuyer tey petite catégorie mënees nañ leen a gis dans la sélection aussi gis-gis bi ngay am sur les jeunes joueurs yi nga xam ni son U17 U18 te mënuñu am autant de chance dans la sélection A Bon, quand même, euh, il faut noter que des efforts sont euh, en train d'être faits. Mhm. Parce que maintenant, avec euh, catégorisation équipe nationale, donc, on a eu U15, U17, U18, ainsi de suite, ainsi de suite, équipe A. Donc, euh, et que aussi, euh, ils tiennent régulièrement le regroupement. donc là di nga gis benn xale ñëw am chance u jaar ci catégorie yëpp mhm. donc foofu direction technique bi vraiment mu ngi def liggéey bu am solo mhm. donc sinon aussi euh, auparavant on avait l'habitude dafa mel noonu ni genre séddoo la woon mhm. da ngay convoqué benn joueur fii convoqué benn joueur ci club bële kee kaas nga convoqué mais maintenant les entraîneurs xam nañu li ñuy def parce que quand même euh, ba U20 petite catégorie la tey jii xam nañ ni club bu nekk dafa am option centre de formation yi ñoom ils ont opté pour la formation mm-hmm. mais les clubs c'est pour la compétition mm-hmm. même si maintenant commencé nañu comprendre di asseoir di mm-hmm. teg ay base pour euh, def ay centre de formation et autres mais tey jii par exemple nit ku nekk ak la mu moom boo xoolee suñu sacre yi passé donc génération foot daf ciy saf-saf euh, jàmbaar même chose après Dakar Sacré-Cœur mu suivre ainsi de suite après bon les clubs traditionnels am ci benn wala ñaar donc loolu am na lu bari loo xamante ni def na ko parce que au lieu que ngay nekkaat di former yow laa fekk nga lu ñu former ba ba pare. Mhm. da ñëw rek utiliser donc. day euh, gën a yomb ci yow. voilà day gën a yomb.